faire une différence sur un coup de génie mais on comptait beaucoup sur Ismaël Ismaïla par exemple euh, milieu milieu terrain am football milieu défensif même à un moment donné tu as l'impression que le Sénégal a consolidé consolider euh, résultat donc am entraîneur je les gens parce que dañoo gëm que Sénégal a cette valeur. mais l'entraîneur sax a reconnu quand tu l'entends dire que Mom, il est responsable. voilà il est il oui il est il est coupable. mais il a coupé la poire en deux. Hmm. parce que quand il dit quand on perd c'est l'entraîneur qui est responsable mais pour gagner. il faut être efficace donc ça aussi il parle de son attaque Mom moo la responsabilité voilà donc nous on va pas lâcher c'est jouable euh, compétition bi doog on a vu Espagne premier match bi muy am euh, Sacram dafa perdre premier matcham. la France bi am Sacram dafa perdre premier match il donc yeneen deux matchs c'est jouable à partir de de là war nañu mën a defarwaat maintenant euh, quand tu as man du ma pas lu tax dugaluñ diw wala diw mais quand tu as quand tu peux avoir si ce banc y a def différence quand tu as Elimane Ndiaye euh, yow tey yaa ngi am problème qui kii jële bal bi ci milieu bi euh, créer occasion créer ay opportunité euh, Pathé si ci benn match ñaari match gis nañ capacité bi mu am mhm. donc tey ak euh, yenn blessure yi peut-être il va revenir pour xoolaat bonne stratégie lay teg parce que face au Qatar on n'a pas droit à l'erreur face à l'Équateur on n'a pas droit à l'erreur ah, en tout cas nous on continue à y croire on continue à croire à notre équipe parce que mën on a une très belle équipe on a tout le potentiel nécessaire l'essentiel il faut que la mayonnaise prenne et que nous teel digérer défaite préparer et ça doit être euh, une source de motivation supplémentaire pour aller de l'avant ok euh, salut Joseph est-ce que tu pensais que Sénégal waroon nous mën wala da ngaa bokk ci supporters yi déception. Eh, non non pas, pas du tout. pas du tout euh, la balle est ronde partout. Mm amatul fu mu ronwee fii mu carré fa. Mhm. fépp la ronwee tey boo la défaite de l'Argentine nga xam ni euh, sur le plan footballistique boko ko waxee ñenn ñi dañ lay énumérer ay tour ngi la diw mu nga fa diw mu nga fa diw mu nga fa donte euh, l'équipe est voilà est vieillissante parce que quoi que l'on puisse dire nous, football lu euh, donc te football xalé mom def mm-hmm. buñu ñëwaaté ci cas bi nga c'est-à-dire ce n'était pas l'équipe du Sénégal qui jouait à Edem. c'était l'équipe d'Afrique c'est l'Afrique qui jouait on a vu même Etofis porter le maillot du le Sénégal. maillot sénégalais. Parce que c'est l'équipe championne d'Afrique, mm-hmm. euh, détentrice de la Coupe, bi nga xam mo coupe d'Afrique, mon mo moo jouer. donc Afrique mon moo doon euh, donc ba ci euh, yeneen nation il hein, voilà a euh, des nations africaines ñom ñu ngi doon supporter Sénégal. voilà parce que équipe bu Sénégal mo jël coupe d'afrique nous euh, suñu njitu rew doon président Union africaine donc. c'est équipe moom moo doon mhm. donc Afrique bi yëpp mom mo dajaloo woon à Aliou Cissé daf ci wara xamé ni donc c'est ce n'est pas l'équipe du Sénégal mais c'est au delà de nos frontières C'est l'unité africaine c'est l'équipe africaine qui jouait. Euh, liñ ci mm, comme disait Antoine rek euh, de Saint-Exupéry euh, une une victoire affaiblit un peuple mais une défaite en réveille un autre ñu sommes ci xam ni dafa am leneen lu ñu war a ji parce que quelqu'un comme mel comme Alun Cissé avec toute l'équipe nationale bi nga xamante ni si dem nañ vers une qualification dañu dem pour jëli ji coupe dañu demuñu pour participer man gëwma di dem ñu naan ay équipe bu Afrique euh, amul équipe africaine bu mës a yegg demi-finale quart de finale non non non dañu bokk ci compétition boo xam ni ñoom joueurs yi ñooy bokk championnat yi. ñoo bokk club yi. Mm-hmm. ñooy bokk xamante nañu bu baax seen biir bal bi dafa ronwee ci ñoom ñëpp. Mm-hmm. xam nañ quatre-vingt-dix minutes lu muy nu muy doxee. donc xam nañ li xew. li nga xamante ni si ñun moom lañ soxla c'est d'avoir des victoires. Mm-hmm. dañu soxla nu ñu jëli jee coupe. ak népp nu ñu ko mën a amee nañu jël coupe. xam nga euh, Pelé lam waxone ban ban bi mo gëna a rafet rek mu bal bi lal tiaxi on a besoin de but dañu soxla manam am am ay résultats. nu mu nu mu mënti ñëwee rek. voilà légui nak le coach moom bi nga xamante ni si dem na def son premier degré deuxième degré troisième ba doon coach ba ñu yëkkati équipe nationale jox ko ko may ko temps mu football ak ak euh, équipe bi Yorol leen ci U20 yi dema dema dem ba doon euh, yor équipe nationale titulaire yor leen yaakaar naa xam na ñi nga xamante ni si ñoo mun football dëggantaan ci li mu soxla parce qu'il a vu bi mu defee sacre yi li mu ko jural moom Aliou Cissé mhm. yaakaar naa nag kon war na ci tirer ay leçons bu baax a baax euh, équipe nationale c'est l'équipe de tout le monde c'est l'équipe de toute une nation c'est un football impression yi day bari calcul yi day bari li di wax day bari les commentaires fay bari mais nañ japp ni rek que dañu dem pour jëli une victoire jëli une coupe gagner la compétition Yagul du championnat compétition la tournoi la bu donc dañu dem pour jëli ji coupe bi nañu ko gëm ñun ñëpp ñu àndandoo si même s'il y a des failles yu ñu constaté yoo xamante ni si parce que kenn ku nekk si ñun mën nañu ni sport bi gën a yaatu Sénégal mooy football kenn ku nekk ci ñun football nga ku football bokk nga ci euh, am nga vie associative ak équipe bu nawetaan bu sa koñ donc am nga am nga di nga am benn lecture boo xamante ni si bu boo mën a joxe la à travers l'équipe nationale euh, nañu bàyyi li ñu jël di ko def ci bopp ñin ñi dafa dafay jouer mentalement psychologiquement dafay dafay dugg ci bon nit ñi le fait de dire que Sadio n'est pas sur le terrain donc on ne peut pas gagner. parce que non non on savait ça depuis. Euh, voilà donc l'homme loolu euh, avant ñu koy wax di ko wax di ko wax au final dafay dem ba dafay déstabiliser les joueurs ñoom ci manque de confiance en soi de leen di le discours de Van der bi nga xamante ci mouille que que coach bu wa Pays-Bas dang koy dégg bi muy wax mom nee surprise la am en fait ci ci gagner bi nga xamni gagner gagné nañ ko Sénégal donc Sénégal bi muy ñëw ci compétition dafa am xol bu ko yenen club yenen rew yi di xol mm-hmm. xolatuñ ko en tant qu'une petite équipe très une très petite équipe. dañ koy ci parce que nous avons le deuxième meilleur joueur mondial. Euh, pour mu doon ko il a fallu qu'il soit dans l'équipe nationale du Sénégal. pour que Sadio Mané le deuxième meilleur joueur ci àddina bi. Mhm. dafa nekk équipe nationale. deuxième meilleur joueur mondial. premier joueur meilleur joueur africain. voilà dafa nekk ci équipe nationale bu Sénégal. a mhm. nekk ak ay naataangoom. ñuy wàlli di ko jox muy wàlli di ci jox di ci di ci loolu bokku ci luko ko fekk que le club ba nga xamanteni fa la nek ba jël ko kon dañu xam tay ni bloc bobu noonu même avec absence kooku noonu mën nañ créer benen joueur bu mel noonu si toutefois rek qu'on y mette les stratégies qu'il faut parce que Taïdini, jii ni boo Hervé Renard comment il a fait jouer son équipe comment il a fait tourner l'équipe Il n'y a pas de comparaison d'où hein. du dañ leen di tëkkale Ouais, mmh. da ngay football xam-xam la bu ñu naan la c'est l'intelligence en mouvement dafa am stratégie yoo xamante ni moom la ñuy fubalee on ne peut pas mënuñ dem di wuti ji victoire jël colonne vertébrale boo ñëwee ba ci deuxième tiers bi ñu ngi fa aligné ñëpp doon ay défenseurs pour chercher une victoire

BBC. Euh, doo yaakaar sax ni xam na football wala mu ngi topp football mais orientation dafay dafay dafay lisible ci biir terrain bi munoo dem di wuti ji victoire. vers une victoire ce deuxième tiers maintenant, y euh, fi sa sa sortie euh, surface de réparation laal milieu bi ba ci milieu terrain bi dem ci y partie bi nga xam ne euh, surface de réparation beneen attaque bi bande bi non, défenseur Quand a def sortie de balle Ismaël ba tax Ismaïla coupé, et on n'a pas un bon bon arrière droite yi euh, euh, tànn nañu mais da ngay gis Saliou Ciss dédoublement yi nga xamni da ko doon def su ki demul moom mu dem pour mën def ay centre mën a piqué ji ci biir nga xamanteni ni biir surface de réparation bi et puis on n'a pas des joueurs de tête on a eu énormément de centres y a pas de coup de tête dans les buts dinañ ci ñëwaat c'est ça quoi waaw waaw dinañ ci ñëwaat euh, yow Serigne yow lool nga gis voilà waaw nooy analyser défaite Sénégal waaw tout d'abord sant yalla bu baax hmm. donc jël lépp delluwaat ko ci loxo yalla parce que pratiquement bett nañu bëree bëri aussi euh, man mi amon naa ci mbetteel amna ci mbetteel mais bi match bi démarré bi ñu déroulé euh, mbetteel amatuma ci mbetteel. parce que yakar nga amoon. non wala da nga gissone ne daal xëy na. gisoon c'est logique. bi match bi démarré. Hmm. quelques minutes après. Hmm. xamoon naa ni Sénégal dina jël but. xoxuma hmm. nak day gagner wala du gagner mais xamna ni Sénégal day. jël but au moins dina jël but. parce que le cas de Abou Diallo. mon joueur d'ailleurs Abou Diallo bi ñu déroulé cinq minutes dix minutes xam naa du ko waroon du ko waroon parte parce que moom boo xoolee même marquage yi mu doon def da ngay gis ni am na lu muy protéger ci boppam ça veut dire que dafa blessé waru woon football man observation boobu laa njëkkoon gis. dafa doon sóoraale quoi. am na lu mu doon sóoraale ba. da doon moytu sóoraale boo xoolee marquage yi mu doon def yu bëree bari Abou Dia Abdou Diallo. da doon sóoraale. te effectivement. genou bi la doon protégé. loolu moo mujjee feeñ. loolu mais annoncé woon nañu ko. xam nga Abdou Abdou Diallo annoncé woon nañu ni Abdou Diallo bu métul dinañ ko forfait parce que dafa blessé moo tax ma amoon njortu ni bu bii di am ci flan boobu lay jaar. ci donc bi mu dugg terrain bi yow da nga gis ne il était pas. 100 non il n'était pas. voilà de de non seulement ak ni mel ku xam Abdou Diallo ku ko xam. Mm. ku suivre suivre ko ci Coupe d'Afrique bi. Mm. nga xam rigueur bi mu am ak marquage yi mu doon def. nga ñëw gisee ko si démb si terrain bi nii da ngay xam ni nekkul Abdou Diallo Abdou Diallo bi ñu xamoon loolu erreur la mais ak lu ci mën a am ñu sant yàlla xam nga Simon mooy li ma waxoon keroog bi ñuy wax ci gestion équipe bi bi ñu nee totalement Sadio Mané forfait nañ ko xam nga coupe coupe du monde du coupe d' réalité yi sax bokkul. gis nga Afrique bu ñuy dem dañuy yebal jom bu ñuy dem coupe d' Afrique jom lañ ñuy yebal ak am physique bu doy mais gis nga coupe du monde xam-xam la xam-xam a koy gañe te xam-xam bi gañe coupe coupe du monde moo ñu gañe démb. xam-xam boobu parce que boo xoolee la entraîneur euh, Hollande dafa xool suñuy faay fa la exploité deux bi yëpp boo xoolee fa la jaar ci flan yooyu la jaar. loolu il faut nga am lecture. non il faut nga am lecture. Hmm. donc balaa ngay mën a def yenn changement yi il faut nga am lecture ci jeu bi. Hmm. jeu bi déroulé. y a beaucoup de choses yoo xamante ni je salue aussi grandeur aline Cissé. Hmm. parce que man amul dara lu may reprocher benn joueur. du gardien de but du kenn. parce que gis naa ni ñoom ñëpp dañoo joxe li ñu mën joueurs yi mënuñu weesu mënuñu weesu seen ay capacité li ñu joxe fii moom lañ joxe woon ci Coupe d'Afrique bi indi ndam muyee nañ la mayo def nañ luñ mën a def mais des blessés donc nag match bi à un moment donné demoon na ba si ci benn stade boo xamante ni Aliou Cissé rek moo mënoon sauver honneur bi te sauver honneur bi weesuwul ci suñuy banc li ñu soxla woon ci terrain bi mi ngi ci banc bi toog pourtant, il y, a eu des remplaçants. Mais pour les remplaçants, bon, ils ont remplacé des, des jours blessés. Mais pour les résultats, ils ont remplacé remplaçants. Non, Simon. Wow, parce que pourquoi la match basculé basculer en fait Non, on a revenir un peu. Si les mains légui légui. Wow. Moi, je me dis, si nous avons une bonne gestion technique et stratégique, nous peut gagner de la Coupe du Monde. Nous on peut Mais c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire, nous avons des remplaçants. mais est-ce que ñi ñu dugal ñooñu lañu waroon dugal ci moment boobu. est-ce que ñi waroon dugg. ñooñoo waroon dugg waaw. dañoo tolloon moment boo xamante ni mais da ngay xool suñu joueurs yi. Hmm. da ngay gis kenn dafay tëye bal di daw di daw di daw di daw di daw bay bëgg a jege camp yële départ parce que du gis ku mu paas le départ la ñu faussé c'est-à-dire ñun a un moment donné on avait besoin de quelqu'un boo xamante ni dafay marqué ay buts. dafay am ay tir cadré. et peut-être hmm? euh, bon ça c'est mon avis quelqu'un comme euh, Crépin Diata, xëy n'est ko chargé mon moo mon bëri. c'est-à-dire man li ma moi il a voulu jouer Sadio Mané alors qu'il n'est pas Sadio Mané. non dañ leen a teg lu voilà xam nga xam nga fan lañ le départ en réalité. mais quand même il y a eu de belles choses aussi. Hein. oui quand même quand même y a des man leen ñoom joxe nañ man gis jeu Sénégal quoi. cest la vie une défense à 5. Hmm. nga dugg ñu def ay phase offensive dëgg ça va les monter nous, créons des ay occasion ils ont manqué d'efficacité ça il faudra le dire. d'accord euh, euh, Sadio Mané absence am mais on devra jouer sans Sadio c'est-à-dire man li on a tenu 85 minutes on a eu pas mal d'occasions pour man on avait tous les moyens de pouvoir gagner ce match. d'accord mais maintenant problème nga le problème coaching là, problème coaching là, voilà parce que le but qu'on prend là. Euh, Pape Gueye su fekkoon a un engagement. un écran de mais dañu a un mu am temps lecture mun a joxe bal bi. ensuite mais, la sortie de Boulaye parce que Boulaye il fixait la défense adverse et premier but c'est la défense qui vient. d'accord mais mais peut-être le Serigne mu mu mu. la la la logique de sa réflexion. voilà li ma doon pratiquement mom le Sénégal yu bëree bëri. mom mhm. lañ wax aussi. parce que euh, li ma bëggoon yeggalee rek tout juste mooy euh, efficacité bi des na potentiel baa ngi fi. Mhm. Euh, compétence yaa fi mais bu ñu amul comme li ma wax sànq une bonne gestion technique et stratégique du ñu dem fenn même Sadio Mané bu ñëwoon li ñu joué dem bu ko joué ñu gagné ñu. Mhm. parce que dafa mel ni dañoo faussé système bi mooy li nga wax joueur bu nekk fañ ko daan tàmm di gis ak lamu daan incarné dafa mel ni dañu jël loolu teg ko foofu dem yóbbu ko feneen daf ko charge bu diis te li ñu gën a rey aussi suñu bopp ñun dañ si jiital ni ñaar yi lañ si jiital. mooy match bi dañuy dem gagné ko facilement génn si. <laughs> alors que. te te Hollande du équipe bu ñuy caaxaanee. Mm-hmm. du équipe bu ñuy xeeb. non du équipe bu ñuy xep mm-hmm. mooy li ma gis nga football affaire tubaab la. Mm-hmm. coupe du monde affaire de de xam-xam la. xam-xam mooy gagné coupe du monde mais du copinage. c'est pas ça. mais pourtant Sénégal c'était la troisième coupe du monde donc nous avons am peu expérience. non am expérience. La coupe du monde c'est disons le haut niveau war nañ ci mëna jëlé dara quoi je veux dire. suñu équipe bi waaw bu ñu système bi war. Hmm. le système qu'il faut. Hmm. mën nañ dem fu parce que potentiel bi ñu yor dafa jafé ci équipe yu bëree baré équipe L'équipe xam ñëpp ay meilleur lañ une club ay meilleur lañ fa ñu ci c'est-à-dire loolu man pour man warul mëna a am problématique. d'accord donc fi may daanalee rek mooy nañu xoolaat bu baax système de jeu bi c'est-à-dire bañ a def suñu xel aussi suñu ay conscience ne sans Sadio Mané dara mënul sotti. Mhm. xam nga suñu erreur wax naa ko fi keroog mooy ñun amuñu habitude di créer un dauphin un remplaçant xëy na peut-être bu fekkoon am na préparation préalable bu am ci équipe bi avant ñuy egsi fii ñu egsi tey ci mondial bi dinañ mën a sortir un deuxième Sadio Mané. mais loolu amul dafa mel daal ñun dañu dem aveuglement ci match bi. Sadio eh, changement yi ñu def aussi lu a apporté wul grand chose aussi du c'est-à-dire du changement yi nga xam moom la ñu Iliman man si sama xalaat bu gàtt joueur la boo xam dafa waroon départ parce que match bi daf ñu waroon jaral lu ne match la boo xam boo ko assuré di nga am njort lu rafet sax ni di nga génn si poule bi ci match de poule yi mais nag gis nga léegi situation bi taxaw xaare dëgg mooy tax ñu génn si parce que il faut que defe ñu gagner deux matchs yi impérativement il faut nous gagner pour nous mener qualifier donc avons ñaari conditions difficiles. difficile devons taxaw éviter dem suñu avons une bonne gestion technique et stratégique nous xamante ne le ci Cissé le le